dikkati naa coow li coow li mooy mburoog soow daal dinay fuur fi mu ne xam nga lan naan mango ba dafa fuusaa Dakar Times naan man mburoog soow dee su ko wax bu yàqoo fuusaa fuur la yéene kaay bi naan man fi mu ne kay attaayaa xew attaaya bu saf mant maanaam naanaa niki démb na grand théâtre la fa amoon teex-teex may ree akolaatante tàppante mbag diggante na Khalifa Babacar Sall Habib Sy ak Soham Wardini moom njiitum réew mi daal di rafetlu bu baax a baax nag liggéeyu Barthélemy Dias maire bu ndakaaru fii ci digg ndakaaru yéene kaay bi naan en tout cas réseaux sociaux yi ña ngay rafetlu bu baax diggante Khalifa Ababacar Sall ak président Macky Sall ak Habib Sy waaye tam Barthélemy Dias tribune yéen a kaay na déet fi mu ne kay nañ ko waxte faatu mbaate dundu Khalifa Ababacar Sall Barthélemy Dias Habib Sy daal dinañuy nag sukku jébbalu ci kanamu président Macky Sall la waaja naan la la tribune yéen a kaay ne ma la dal Khalifa Ababacar Sall dal Karim Meïssa Wade lii la Barthélemy Dias bañ mu tal ko l'exclusive a naan man dialogue ba kay dafa daal di tàmbali faf diggante président Macky Sall Khalifa Ababacar Sall ak Barthélemy Dias ko mburu ak soow président Macky Sall nag dem bay rayal teeñ Barthélémy Diaz le regard yéen kaay naan maan Sall dafa dalal Khalifa ni gees nag tàmbalee may tuuti sourire Barthélémy Diaz le quotidien le quotidien naan maan Sall yi daal gise nañ moom président Macky sal ni gees Barthélémy Diaz ne ko dinaa wax sa baay ne ko liggéey nga Vox Populi naan man ca Grand Théâtre ni ki démb Khalifa Babacar Sall Barthélémy Diaz Soham Wardini ak Habib Sy ak président Macky Sall nag suwe nañ fa seen théâtre bu neex waay Sall di leen fa piis leen kaay leen Barthélémy Diaz a ngi rafetlu bu baax a baax di la jaajëfal yow président ci engagement bi nga am nag ci peggug maire bu ndakaaru le témoin yéen a kaay naan man dialogue ba tàmbali na laataa waxtoom wala it muy ay naxee mbaay président naan Barth yaa ngi doxal de te doxal gii ngay doxal naa ko wax Jean Paul Dias tribune yéen a kaay naan man bu nekkee da nga ni diw sab noona noon boobee bu taxawee di la tagg dëgg-dëgg am na lu ca soppeeku wala it yaa ngi doxal ay mbiram le témoin a en tout cas démb akolaadante nan souriirante nan sourire complice nag ku ne di di piis ak a rogo jeeru sa bés bi le jour ne ma seen wu njëkk ngi loo xam ne nag wane na ni bi dëgg-dëgg tàmbali na sàll naan koon en tout cas Bart yaa ngi doxal Bart may ko réegoo xam ni maa dey taali boole ko di joxoñ président ca wet ga Khalifa Babacar Sall di akkalaatanteeg président Macky Sall laas yéene kaay naan maan en tout cas dialogue bi moom ñi ngi xaatim daar daar nes ko tegee ci réew mi démb nag l'info yéene kaay naan maan moom président Macky Sall lu mu nekk nekk à l'aise ak Khalifa Sall daal dinay gën a relax nag ci digganteem ak Barthélémy Diaz Bart si mi nga xam ne daanaka mënees na ko woowee bête noire am moom Sall démb daal seen tex-tex may ree ji doy na waar lool sursoir naan maan fi mu ne day Sall ak i gaayam ñuy mën a waree pour dialogue daal ji am ci réew mi ni ki démb nag noonee lañ ko daal di wane Khalifa Babacar Sall boo xam ne ex prisonnier am la woon moom Sall ñu gis leen ñoom ñaar ñuy akolaadante ca wet ga président Macky Sall di fa tagg ba maa day taali Barthélémy Diaz président Macky Sall mel ni koy xamal naan kon liggéeykat nga doxalal Sud Quotidien naan maan président Macky Sall gëtam yëpp mi ngi ko teg ci maire yi maa ngi leen di piis benn par benn le mandat yéen kaay naan fa xasan kenn ñemewu ko wokk la sall lelli fi mu ne yemul ca wokk ga critique yéen naan man en tout cas président Macky Sall moom mooy doxal loo ci manti déggit Sall ma ngay déroulé la mu bëggoon ci réew mi démb ci juróom benneelu ndaje bu forum mondial bu économie sociale ak solidaire di bu njëkk boo xam ni Afrique dalloo na ko Sénégal dalloo ko ñu gis fa théâtre boo xam ni am na fa maar day taali bi naan maan xëy na ni événement bi toll dayoom daal moo yëngal deretu gaay mi nga xam ne mayul woon maire yi fi nekkoon dara daanaka tagg leen ci seen jëf ju rafet woon Sall da cee jéemul woon lenn démb nag moom président Macky Sall moomee moo daal di gërëm Barthélémy Diaz critique ne ko en tout cas ci yoonu dialogue la ñu nekk te moom Khalifa Babacar Sall ay ñoñam ñoo ni ko wuy ji source a naan ko déet waxul day dem ak du dem de fi ne nag ñaar ci basam dong ñoo ni dañuy dem Pikine ak Tamba xaaf nag tontoogul ndax day xaar Sall daal di wax dëgg-dëgg dialogue bi nan lay demee l'enquête ko di jeene ma la fi mu ne ak fi mbiri toll am na ñoo xam ne tàbbi géej politique bi fi mu toll nii ci wàllu calcul la l'observateur naan weesu nañ foofu de dialogue bi de fi mu ne président Macky Sall mi ngi xool nees ko talalee ci réew mi dialogue dina am ak du am moom yitteelatu ko direct news daal dina ma coow li moom moo di diggante Khalifa Babacar Sall Karim Meïssa Wade kan moo cay gloria bi nga xam ni président Macky Sall waxoon na ko ndax ci jamono bañ ko doon jiiñ buroog soow moo Idrissa Seck président Macky Sall dafa ni gees idi ne ko fi mu ne de poñse bi neex na lool te dana dàqati ndax am na kenn koo xam ni ñëw na te mooy àndaale gloria bi fa naan toog waxtaane réew mi farata la ca pegg ba may sa Wade naan buñ ma amnestie fi mu ne mu mel ni waxatuñu waxu amnestie gi nag laaj wa mooy ndax may sa Wade dafa ni moomit it lu ma am baax na mbaa du dialogue bii nag mooy lijjanti diggante Karim Meïssa Wade ak président ki Sall fi mu ne nag coow li mooy laam-laamee amatul diggante Khalifa Ababacar Sall ak may sa Wade jege nan lool Sall ngaari lam tooro Bourguédé lanket ko di jee fi mu ne nekk sa bopp la yitteel de diggante président Macky Sall Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade jamonoy calcul dëgg dëgg-dëgg ci la ñu nekk te dialogue politique boobee nga xam ni président Macky Sall woote ko mi yëngal bu baax a baax yeewi askan wi diggante Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko boo moytul mu yàqu tas ndax nag Khalifa Karim Meïssa Wade moom dialogue bee leen jig réew mi ko di jee naan maan Khalifa Ababacar Sall mi ngi séqi beneen jéego jëm ci président Macky Sall Déthié Fall naan kon bul ma woo ndax topp ma la 24 heures a kaay naan man fi ne day politiciens ci yéenekaay bi naan fim mu ne réewum senegal ñaari façon politicien moo am am na ci ñoo xam ne 1960 ak tey ñoo yàq yàqeet réew mi am na ñoo xam ni fi mu ne dañoo taxaw ci tànku sangaat réew mi waaye tam joxtu tànk yi seen gëdd bi nu yeeyoo Walf jee naan kon bugaan may ma rek ma ñëw fi mu ne daal lan ne woon dañoo bëgg isolé Ousmane Sonko berka ñanga ca te boo moytul nag dana antu ci mim réew bugaan gay dana ci tribune naan kon may ma ma yegg li ndax nag fi mu ne la ma jor sàll démb toyul xam nga lan mooy yitte bi 2024 libéré Sénégal ci sàcc yi nga xam ne ay gerkat lante nekk ci république bi fi mu ne nag président ki Sall loo ko mënti waxit félicité ko da ca gën ndax nag tax nañu xippi suñuy gën ci politiciens yi nga xam ne ba Sénégal moom moomee boppam ak tey ñoo yàq réew mi daf ci am ñaari xeetu politiciens yoo xam ne sàll moo tax ñu xàmmee leen ñi nga xam ni defar réew mee leen tax a ak ñi nga xam ne 1960 ak tey duufal seen poche moo leen tax a nguur gu ñëw ñu ànd ak moom fi mu ne système bi ñu yore dañ ko war a tas tasar ndax nag daal dinay jonkanal réew mi gasaxal suñuy force de défense de sécurité wàññi wàññi doole ak cëru sunu magistrat yi ci réew mi waaye tam nal opposition bi ba maar day taali 2024 loo ci mënti waxit Sénégal dina am liberté am dialogue dil bi ànduñ ci troisième mandat bi ànduñ ci libéré leen détenu politique yi lii la Bougane Gueye Dany wax l'indépendant yéen kaay nan man en tout cas fi mbiri toll nii moom président Macky Sall day ma ngay xaajale yeewi askan wi ba maar day taali Walf Quotidien naan man berit Ousmane Sonko professeur Mary Teuw ñaan fi ne daal dialogue bi ma nga nar boole ña nga xam ne dañuy soppeeku à tout moment nu leen neex mel yéene kaay daal di jébbal kàddu Maodo Malick Mbaye muy xamal Ousmane Sonko ak Mimi Touré naan leen daal di boycotté dialogue politique bi day xaru la Maodo Malick Mbaye ci le point naan opposition bi dem leen wuy ji président Macky Sall mooy dëgg ndax fi mbir yi toll jàpp ne mën ngaa gasaxal réew mi day yàq sa xalaat la Modou Gueye bu ànd defar Sénégal ci l'exclusive yéene kaay naan bu kenn xalaat tëngeej tëngeej moom fi mu ne daal dinañ koy sécuriser ba maar day taali booba sa Dia responsable APR ca Kër Massar ma ngay woo ñu jox gëddëm Arona Dia di tegaat ko ci kanam ndax président Macky Sall am la mu amoon 2019 réew mi quotidien naan man boobu maire yaa ngi teg fitna askan wi ne tulleeg maale ca liberté 6 commerçant yi nee ñu àll wu yaa moom la maire ba bëgg a jébbal Carrefour l'évidence yéeni kaay naan man ca Podor askan wa nee ñu Podor daanaka dara amatu fa beneen surtout Baye Niass di attaqué Baye 6 ne la muy def ci liggéey ca Medina Baye doxul booba ca Thiaroye sur Mer libéraux yaa ngi fa yekkante marday taali Karim Missi ci boppam ne député bii di Ndiaga Niang moo fa bëgg def bu rëg bu mi duñu ko nangu di taxawal ay secteur yoo xam ne fictif la a def juróom fukk ci ay nit moom Ndiaga Niang di wut fukki nit ak juróom jàpp ñaar fukki ngir taxawal secteur Adama Faye ak union karimiste yi nekk foofee ci Thiaroye sur Mer naan nag direction bu parti bi moo ci war a wax ndax tànk Ndiaga Niang mi ngi jiite parti bi foofee suux lay def fi mu ne nag parti démocratique sénégalais mi ngi ci ñetti appui ci Thiaroye sur Mer daanaka nërmeelu yegg teer moo ci des ñetti junni ak juróomi téeméer ci baat lañu jóge woon 2014 fi mu ne daanaka junni baat na leen 2022 loo xam ne parti démocratique sénégalais musu ko am Thiaroye Géej ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm